bismillahi mina shaytaan rajim bismillahi rahmaan rahim ah, mbokk yi ñu ngi ne ñëpp di leen jaar tey ñu fas yéene ci gént goog mm, bari nañu koy laaj mi gént nekk ci saret moo xam ñariñ dañuy gént nekk ci saretu fas ñenn ñi ni gént di nekk ci saretu mbaam ñenn ñi di gént di ànd ak ñun xam ci kaw saret bi ñenn ñi di gént nekk ci saret bi ñoom kase ñenn ñi di gént di dawal sareet yëpp ay gént la yoo xam ne ku ne xam na ni ñu koy laaj bari na xam naa sax bu jàllee dinañ dugg ci ñi nga xam dañuy faral di gént ñu leen takk lu bare bari ñu am borom kër wala ñu amagut borom kër ñoom dañuy faral di gént ñu takk incha allah rabbi su jàllee dina ñëw ci loolu. kon gént nekk sareet am na ay tegtal yu am solo waaye tegtal yu yu mat di bàyyi xel ndax niñ koy faral di waxee gént du hasard lu ci nekk rek. am na lu yàlla bëgg a wane euh, ala kulli xaalin nag euh, su fekkente ne nag dangay faral di dugg ci mbir moo xam ngay wut place waaye laa ngay wut soxna way laa ngay waaj tukki way ngay tàmbali benn mbir euh, fekkente ne nag dangay tukki ngay gént di nekk seretu fas ala kulli xaalin dañ la xamal ne tukki bi tukki bu mën a jàppandi la waaye nag tukki la boo xam ne faw nga ñaan ci wut ci sàkk ci ay sarax yàlla defal la ci tawféex ba tey su fekkente ne nag da gént nekk ci saret nekk ndoog ñoo xam ci biir gént gi ci kaw saret bi euh, alaakulli xaalin lool it baax na dañ lay xamal ni nit ku walla rafetal nga jëmale say dëkkandoor waaye laa say jege ñaale euh, ba su fekkente ne da dangaa gént nekk ci kaw saretu fas du ko dawal yow ya kese ya. ala kulli xaal ñu lay xamal ne bu dee sëy la sëy bu baax la sëy la boo xam ne bu dee borom kër dina la déggal ku lay bàyyi xel ku lay jox cër lay doon su fekkee nag da ngay faral di gént nekk ci kaw saretu mbaam gént nekk ci saretu mbaam nag nekkul lu gën ci biir gént dañ lay xamal ni ay pexe seytaane luy mën a sotti sa kaw lay doon bu doon mbir la mooy dugg ngay faral di gént di nekk ci kaw saretu mbaam dañ lay xamal ne seytaane mën na ko yàq waaye laa mën na cee am yoon ci ñenn ñi ba tey ñenn ñi nekk ci kaw saretu mbaam danay tegtale yokkute ci ñoom danay tegtale aajo ju fajum eh, ala le xaalin mën ngeen a jël numéro yi incha allah rabbi ñi am aajo woo gént 78 443 75 27 bu dee ñi nga xam nag dañoo am tawat moo xam émorite wala ndoxu siti waaye ilaa ñoo am tawat ci far rab wala coro rab waaye ilaa ñi nga xam nag dañoo bëgg ku leen seetal waaye ilaa ku leen listixaaral incha allah rabbi mën nañoo jël numéro 78 443 75 27 ala kulli xaalil ba tey gént nekk ci kaw seetu fas ak ay nit ngay dawal Euh, ba tey bu doon say la nga xam ne say boo xam ne nga bokk ak ay nit euh, dañ lay xamal ni bokk nga ci yow mi nga xam ne sa borom kër dana la jox cër lool dana la déglu lool rek ba tey bu dee ci place nga nekk gént nekk ci saretu fas di ko dawal ay nit nekk ci gannaaw dañ lay xamal ni place ba nga nekk ku fay am cër ngay doon kii nit ñi di bàyyi xel ngay doon ba tey it gént nekk ci kaw aw sareet muy daw daw bu gaaw am na ci ñoo xam ne soxla la le soxla lay tegtale ci ñoom lu ëpp dinañ am soxla soo xam ne du gaaw a faju bu dee nag dangay dugg ci mbir ci misaal ngay waaja a tukki di gént nekk saretu fas yow ak ay nit dañ lay xamal ne tukki bu mën a sotti la waaye tukki la boo xam ne faw ay nit jàppale la ci mu doo a sotti ba tey su fekkente ni nag dangay faral di listixaar soxna nga gént nekk ci kaw saretu fas di ko dawal loolu yi dañ lay xamal ne soxna su baax la soxna su ndara bari njaboot la soxna su bari wërsëg la te seeni bidiw ànd na laa kulli xaalin boo ci duggee lu ci ëpp yàlla mën naa def suturo euh, ba tey mbokk mi nga xam ne dangay faral di gént di nekk ci kaw saretu mbaam saretu mbaam nag dana nekk ci mbir yoo xam ne fekkente ne dañ ciy dugg lu ci ëpp mën nay am ay gàllankoor nga dugg ci mbir di faral di gént nekk ci saretu mbaam li xamal ni mën na am ay gàllankoor wala ay jafe-jafe ci misaal bu doon place la booy wut ngay faral di gént nekk ci saretu mbaam mën nañ lay xamal ni mën nay am gàllankooru seytaane waaye laa nit mën naa wax ba nga ñàkk foofa euh, ba tey gént nekk saret yow ak ay nit ñoo xam lool it ñenn ñi dina tegtale ndimbal guy am digganteeg ñoom ñenn ñi dana nekk ak ubbiku ci ñoom ñenn ñi dana nekkoon lu leen jafe lool yàlla na mu ko yombal ñi faral di gént nekk ci kaw saret nekk ceeg nit ñun xam ba tey nag gént foo toll di gént di dawal saret